di Siteu ndam naka nga gisee làmb ji ak ban jàngat nga ci am. waaw làmb ji ni ma ko gisee mooy dugg nañ ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci ci alhamdulilahi rabbil alamin ah, ni ma ko gisee rek mooy préparé nanu sunu mbër muy Papa Sow mm-hmm. ndax ñun moom la ñu faraloon mm-hmm. waaw moom la ñu faraloon préparé ku mu war def li mu war li mu war a def ci làmb ji yëpp def na ko mm-hmm. entraîné bay booy bëgga dee ba boo ko gisee sax da koy yërëm. mais rek ndam ci yàlla lay jóge yàlla moo koy joxe. mu bëre ci fulla ak fayda nu daan ko que le meilleur gagne le meilleur a gagné. Mm-hmm. mooy Siteu maa ngi encouragé Papa Sow di félicité Siteu. Mm-hmm. waaw d'accord gis nañu démb bi nga xamante ni Papa yàlla dogal na ne mu ñàkk li nga xam ne moo di combat bi dafa taxaw daal di annoncé ne dafay bàyyi làmb est-ce que yéen ay supporteurs am ay dëkkandoom ànd ngeen ci décision bi nga xam ne moom jël na ko. waaw loolu moom sama gis-gis man xëy na du ci am solo mais man bu fekkee sama xalaat rek laay wax man mu bàyyi làmb moom mu gënal ndax ku def vingt sept combats mm-hmm. am six defet am vingt et un victoire mm-hmm. kooku palmarès bu rafet la def mm-hmm. ànd na ay mbokkam ñu jàppale ko ci bépp fànn bu mu waroon def ci làmb ni mu nekkee face ba ni mu ñëwee sos écurie bii xëy na rek li ci metti mooy écurie bu bees bi mu ñëw mu def ci première combat am ci defet loolu dong mooy métit bi ci am du leneen mais rek la vie continue ay xale ngi fi ay xale ngi topp ci ginnaawam écrit bi ki ko jiite kilifa la yéene leen ñëpp nekk ci ginnaawam rek su ko defee moom it mu ñëw jàppale xale yi comme ni nu ko jàppale woon ba mu am loolu mu jàppale xale yi làmb làmb continuer d'accord boo amoon message booy lancé jëmale ko ci moom Papa Sow ban message lay doon li ma koy lancé daal mooy defet moom defet la da daan am victoire da daan doon daan ay doomu jàmbur muy neex ci ñun buñ ko daanee day sant yàlla rek waaw loolu rek laa koy laal na sant yàlla te te muñ te góorgóorlu mhm. la vie continue ah waaw merci beaucoup merci jërëjëf waaw mu ca xew